mois je trouve que nit ki sooy dugg si dara da nga war a seetlu li ci nekk gis nga boo nee damay poser sama candidature pour lii liir nga texte yi xam nga liñ ci wax nga d'accord ci dem boo ci d'accord rek quand c'est pas illégal rek tu peux pas être de mauvaise foi mm-hmm. xam nga xam nga dañu nekk si dëkk boo xam ne aussi il faut ñuy waxante dëgg yi quelque que soit euh, position yi parce que des fois c'est vrai que il est des fois beaucoup plus facile de taper sur quelqu'un qui est au pouvoir euh, plus facile que kenn ku nekk ci opposition parce que tu as on a ces ces là boo du complexe non complexe peut-être c'est trop mais c'est c'est ni nu mu demee la quoi c'est-à-dire que da ngay da tu as le sentiment que moom moo gën a néew doole xam nga moom moo gérewul peut-être deniers publics directement donc tu as tendance à être beaucoup plus euh, indulgent ci moom quoi te te pour man Ah, dëgg bi bu ñëwee rek quelque que soit boor bu mu féete dañ ko war a tranché wax ko mu leer. Mhm. encore une fois ah, képp ku dugg ci élection xam nga la ca ne. Mhm. war nga koo xam bokk. Mhm. yoon nag yoon la. tant que wàccoo yoon. ah munoo fexe ba politicien bi du politicien cest à que moom nii sama sëriñ bi bu toogee ak mbaxane bu bleu bi. ne la wéy non dañ koy accompagner ay yooyu <laughs> oui mais quand même c'est euh, la politique. c'est une arnaque. voilà non non en fait da ngay xam que ni. Hmm. aussi beneen côté bi mën na am bu nu waxantee dëgg rek quoi. Hmm. donc ce qui s'est passé si si Guédiawaye c'est euh, loo xam ne peut-être yoon daf ko permettre ci taxi yi la nekk. Hmm. lu nekk ci taxi yi mën nga ko wax avant xam nga processus bi di dem mais munoo ko wax <coughs> bu paree ba ñu ba ñu kii xam nga parce que doon jubilé y a trois un mois ah. peut-être que li moom mi intégré woon na ko wala intégré wu ko mais bu dee loi bi moo ko permettre parce que ñeneen ñi nekk na aussi ci conseil bi ñëpp ay nit a leen voté. lu mm-hmm. dëgg ñëpp ah non dañoo am gan bu bees de dugg si. Mm-hmm. moom kenn xamul donc donc pour pour euh, pour pour revenir à ce que je je mooy ñi nekk ci conseil bi aussi ay nit ñoo xam ne dañ leen voté la lu dëgg. ñooñu dañu am ay ñu leen votel c'est pas des gens yoo xam ne dañu jékki-jékki rek ñoo toog foofu du dëgg ah am na ñu leen votel te ñooñu am na fu ñu bokk donc quel que soit lu ti am bu fekkee ni ce qui s'est passé à Guédiawaye texte yi moo ko wax yoon moo ko wax ah moi je ne vois pas ah règle yi wax ko règle du jeu yi muy ay Aïdara keneen moo ci yem munoo taxaw nga ni règle yi dañ koy changer. Mhm. parce que c'est moi. Mhm. c'est pas possible. Mhm. nan waxante dëgg. te il faut que ñuy wax nit ñi aussi dëgg ko parce que euh, soit dangay ngay am volonté jaxase pédale yi parce que su see ce côté coow yuuxu xëccoo affaire c'est une chose mais yoon tam yoon la te dëgg la yàlla bëgg. mécanisme yooyu man comprendre ma ko xamuma nan la gars yi def kan moo seeti kenn guddi kan moo seeti kenn bëccëg kan moo jox kenn leen boo ci waxee rek da ngay tooñ mhm. parce que fekkeewu ma ko du ma fekkeewu du ma ko li ma mën a xam mooy que est-ce yi permettre na si c'est bu ko texte yi permettre mënuloo yow parce que que ñu fal la maire que ñu fal la président de la république mooy yem texte yi ñoo nekk ci kaw ñëpp te texte yooyu dañ ko war a régler te loolu moom mooy moom mooy mooy dëgg te du ñu taxaw aussi si si yenn affaire parce que tey jii nii moi je, je par exemple je regarde sur internet je vois euh, parce que dëgg la. Hmm. li ma dégg du ay chinois. Hmm. ma dégg benn maire bu ne nanu yàq leew liiwu euh, vote yi maa ko dégg yéen ñëpp ko dégg. Hmm. te moom la ñëpp ko fi dégg. moom si boppam moo ko wax. man man bàyyi ma rek ma egg dama man su ma déggee loolu ça me pose un problème par un micro ah. ah ben moi j'ai entendu. et vous ko dégg. non non dëgg la parce que dëgg aussi bu buñ ko waxantee rek quoi. mooy mooy kenn mënul yàq vote vote dafa war a bu jaaree yoon du nit moo ko mën a yàq donc aujourd'hui bu fekkee ne conseil municipal bi que nga majoritaire wala nga minoritaire bu dee que ci règle yi la jaar kenn amul droit que mu nekk Ahmed Aïdara keneen nga yow nga am pouvoir changer ko wala nga indi coow fëgg ci table bi gars yi reculer c'est pas comme ça parce que règle yooyu appartenirul Aliou Sall wala mu appartenir à kii sénégalais yi ñoo ko moom parce que ci loi la nekk du mhm. te loolu dafa mës a am partout le monde bu amee ay ay ay ci communes yeeg yooyu day ay New York yooyu même bu amee maire amee am na ay contre pouvoir am na yenn quartier yoo xam ne boo bëggee def yenn affaire maire New York mënu ko parce que am na euh, euh, un élu boo xam ne day dafay dafay dafay kii te ba pare bu dee nit ñi def lu leer rek moo leen war a moo leen tax a jóg hmm. je pense que diversité boobu ci biir conseil yi ça ne fait que enrichir la le voilà hmm, hmm. waaw mënul warul gêner maintenant maintenant dañu nekk ci dëkk yoo xam ne effectivement Euh, nit ñi war nañu pour man boo nekkee ci yenn position yi am na yoo xam ne sax doo ko wax parce que soo ko waxee rek da am problème par boo nekkee ci pouvoir dëggantaan am na yoo xam ne doo ko avancer parce que da ngay naxasal xelu ni dañu naan déjà yow tu es de mauvaise foi da ngay jéem empêcher nit bi mu liggéey wala dara hmm. pour man loolu c'est teg textes ñoom ñoo koy définir te nit ñi dañu war a am retenue ama kilifa aussi booy génn di def ay ay déclaration hmm. il faut nga xool li ngay wax hmm. parce que mën nga wax benn affaire xam ne ëllëg même boo defee autrement xam nga boo nee nit bi par exemple doo fi gouverner après euh, waa ji même nekk ci même camp bi toog ci bi télé bi ne la di ñun dañu fas yéene dañu ne nañu ànd ak yow y a une contradiction en ça ku seetaan li xew géej waaye xam ni c'est une tension c'est personnel kii naan yekk nga ma lii kii naan wax c'est débat bi yëpp du population yi nit ñi la entre nit ñi te muy géej waaye parcelle ak foog ngeen mi moo ci yem mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom lañu fal ah ci seen taxawaay ak ci seen doxalin ak ci seen ay démarche nit ñi leen fal war nañu xam ndax ñi seen priorité nit ñi la wala seen bopp la te loolu moom mooy dëgg aujourd'hui aussi bu euh, dañu war di jàngat taxawaayu opposition yi avant échéance yi mm-hmm. c'est important mm-hmm. parce que y a des yoo xam ne ci biir opposition bi ñu koy poser après après les les élections mais ça pose problème ça pose problème c'est-à-dire que aujourd'hui da nga ji koo xam ne neen opposant la après conseil municipal bi waa ji dem ànd ak waa ji ne ci pouvoir a des calculs moom lay wax nii y a des calculs pour man affaire bi dañu war a seet <laughs> exactement et loolu dafa war a dafa dafa war a wan nit ñi bu ñuy bu ñuy def le choix il faut ñu def le choix ci ñi nga xam ni da ngay xam ne kii parce que lii rouge la lii weex la joonul kiiwul quoi donc am na nit ñoo xam ne dañuy jouer benn jeu ba affaire bi nekk nii ñu teg ko ci kaw table bi et loolu moo moo rey am ay dara loolu la c'est ça voilà je rappelle mooy lu nga doon wax la fois dernière tu te rappelles le truc wàllu la clair obscur mais mais moom laaj mais c'est ça que c'est-à-dire que ci biir processus bi yëpp <laughs> yàgg nañu non parce que boo boo see un si si élection yi passé di nga xam ci taxawaay pendant que gars yi def campagne yi mm-hmm. tax taxawaayu nit ki di nga xam parce que on est de des pays yoo xam ne mais il y a beaucoup de de gens yoo xam ne dañuy clignoter gauche jaate droite dañuy nekk ci Guinée la way fekk en fait virulence bu seen opposition war a am sax amuñu ko à la limite da ngay naan pouvoir la ñu àndal du ñu wax dara kenn lu mu wax ñu ne way xaw ci xam nga fii yeewi askan wi moo fi nekkoon benn benn en tout cas benn euh, coalition boo xam ne da war a ne jàkkaarloo na ak ak benn bokk yaakaar ne ko yow damay xeex ak yow mm-hmm. am na ay coalition yoo xam ne peut-être de circonstance la et je pense que <laughs> li li nekk nii di xew non li nekk nii di xew mi ngi ñu koy wan junj doy na borom xel mm-hmm. liy wane la moo tax lu tax moo tax nit ñi bu ñuy def yenn choix yi ñun population yi war nañu mat mat boo xam ne moment bi ñu koy def ñu am ci jàngat du lucidité parce que aussi on est dañuy manipuler ba nga xam ne mm-hmm. après nga ne mais en réalité le gars mënatuma ko gëm si dara quoi da nga ji ko ànd fii tey bu subaa mu nekk ne moom la ma la doon wax yëpp di fa gis table bi tey jii mu jékki-jékki changer complètement de position. yow c'est important. xam nga faire la différence entre coalition politique et coalition électorale. de circonstance c'est ça mooy. li ma wax et loolu te loolu dafa parce que pour man. benn benn benn logique. Ah, te te gis nga nit ci sa ci sa démarche. te loolu ñun ñuy choisir dañ ko war a convoquer. ci sa hmm. démarche. Hmm. dañu war a xeel ci sa logique. am na benn logique boo xam ne boo ci yoon boo xam ne boo ci nekkee. en aucun cas am dañoo xam ne mënoo ànd ak ñoom parce que c'est un problème de principe mm-hmm. oui conviction et xam nga boo waxee ñu ne euh, way politique euh, addition la du soustraction mais je man damay soustraire koo xam ne bokkuñu ay conviction mm-hmm. wéet gore wéetali ko gore mm-hmm. te loolu ñun en tant que population loolu la foofu parce que foofu la ñu war a jàngee te foofu la ñu gars yi di amee parce que dañ c'est comme si dañuy xool ne ñii matuñu parce que ñun bu ñu matee dëggantaan ba mën a différencier entre ku may nax ak ku may dóor ak kuy wëri koñ ak ku bés bu ñu amee jàngat boobu te jàngat boobu ak a yomb boo ubbi sa bët di ko gis. donc loolu moom moo indi lii yëpp parce que bu doon li waraan am am na ba dëggantaan waa ji peut-être di serait majoritaire ci biir affaire yi. xam nga et il faut que aussi ñi nga xam ne dañuy engagé wu ci politique par exemple ku mel ni ay Aïdara wala keneen ak keneen ndooy baa nag Samba Ndiaye ak Demba Ndiaye képp ku ci jóg ne da nga nga ni yombut. triste réalité this is the reality man am na ay xeex yoo xam ne boo bëggee def politique da nga ciy nekk parce que affaire de majorité la ñaata député laa am ak ñaata gars yi les euh, euh, élections législatives ak élection présidentielle moom la ñu indi ci commune rek. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. tey jii bu ñu demoon élection législative euh, opposition bi ji majoritaire ci assemblée nationale problème du du am pour pour kii bi. léegi léegi la personne qui est dans si opposition bi même boo dégloo discours. opposition bi wala discours politique bi en tout cas mais seen seen objectif mooy que Benno Bokk Yaakaar soit minoritaire ci élection euh, législative bi mm-hmm. du loolu mm-hmm. si si c'est pour bloquer le pays non non non dama ne non kuy wuti élection législative kuy wuti député nekk coalition sa objectif mooy d'être majoritaire mm-hmm. pour empêcher aux autres de dérouler seen programme yi nii nga foog ni ñoom lañ ko foog donc logique boobu moo nekk ci commune yi fu mu nekk nii mais tant mieux pour nous parce que réew mi fépp fu fi am divergence ci idée yi budget yi ñëw parce que suñu réew yi dañoo feebar feebar yi njëkk yi ci gën a bëri feebarum xaalis laa koppar bu dee budget bi dafa tegu nii kii bokk gauche ki bokk droite kii ku ne di xool fu budget bi di dem tant mieux pour nous les populations mm-hmm. majorité fii ci histoire bi mu amee ba léegi moom moo ñu indi tooxi duuna yu bëri parce que tout simplement amuloo ku naan non. oui c'est donc bu dee si ci ci communes yi la ñëw mais tant mieux te noonu la war a doxee il faut que pour man ces trucs de loi là nañu xool logique est-ce que ci biir commune yi loolu kii boobu warul am compétition boobu na tar contre pouvoir am contre pouvoir am le maire ban réputation la maire yu bëri am fii Sénégal pour njëriñu réew mi mais ñaata maire ñoo fi def naka sudul noonu parce que dañu amoon pouvoir jël suufu jàmbur jaay wala def li mooy problème yi gën a mag fii ngay dégg est-ce que bu amoon kenn koo xam ne mi ngi xool hmm. ah njëriñu askan bi mais kooku moo lay njëkk naan du nekk donc pour que mu am comp cette compétition là ci biir mbir mi mm. mais tant mieux parce que bu dee ñëpp comme ni mu ko waxee liggéey moo leen tax a jóg mais bu boobaa bu bu budget yi ñu ko war a voté kii dina jàppi kii ne lii logicul ba ñu trouver consensus tant mieux mais majorité moom mm-hmm. nit ñi ñoo la koy jox munoo ko amal sa bopp te kenn amul pouvoir par exemple le préfet quand il est là il faut le respecter. c'est une règle c'est une ah. autorité. vraiment autorité la am na bu ñu fragiliser yenn yenn nit yi. da day autorité la. waaw da koy respecter. Mm-hmm, mm-hmm. quel que soit foo mën di jóge parce que il faut que dans ce pays là. république non il faut que dans ce pays que lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu taxaw taxaw aar ñu am. Mm-hmm. ñu taxaw si dëgg. dëgg bi mooy que ki am cër nga jox ko ko. yoon daf fi nekk pour ne bu dee kii cëram père de famille la ñëw na toog ne lii mooy sama cër jox ko ko. parce que boo ko joxul nit duñ la ko jox. Mm-hmm. quand il faut qu'on soit logique quoi. Mm-hmm. Mm-hmm.